waaw wallahi inni xillun lil ilahi bihi xibbun lahu duuna kasbin fihi ujsahu Sëñ Tuubaa dafa doon liggéeyal boromam ne man xaritub yàlla la waaye xaritoo gi ak liggéey bi mu koy liggéeyal bëgguma ci dara dama koy liggéeyal ngir ngir bëgg jëmmam ji rek waaye séentuma ci ak pay duuna kasbin fihi ujsahu jublu ci ak fay waaye suñ boroom moom bu lay fay ah, ku ne xam na ne ku ñëw taxaw fii tey da xam ne cheikhul xadim suñu borom fay na ko aqsamtu billahi inni linnabi abadan xillun wa hibbun wa ma abaahu yaabaahu nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu abaahu dafa giñ te giñuk sëñ tubaa nag lu mat a bàyyee xel la giñuk sëñ tubaa giñ ne moom xaritub yonente bi alayhi salaatu salaam la xaritub yàlla la ba yegg na ci lépp lu mu bañ suñ boroom dana ko bañ waaye it daan na yonente bi alayhi salaatu wasalaam te mooy xayrul wara nee na moom mooy càkkutéefam ci lépp loo xam ne yaa gi sëriñ bi nekk ci fii kulli shay'in la wax ba yegg ci wama yaabaahu abaahu kooku mooy sëriñ Tuubaa ku ñëw fii ci tey ci masalikul jinaan gis jullit ñi ni ñu mel fu ñu bàyyee koo fa penku ak soow nga xam ne sëriñ Tuubaa xaadim rasul am doon wax ne zimamu sawi lislami fiha fa man aba mu ko siya fi dunia udilla ma al bisi ndakaaru yi mu ngi koy dëggal sëñ Talla ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak Tawfekh Production ak fu ñu mën a nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. sëriñ bi dalal nga xel ye saral nga xol ye indi nga may bilanti yaay yaa sellug dundu yow de amuloo dend yow rek ànd waxtalaanaay wa yaa ko yaa jarawaayo ñëwal ñu deeyo bisa saanaay yaa jara yaa jara màggal waylaanu bégal yaa salqiinaay Sëriñ Tuuba Qur'aan nga dëggal yónneen nga dikkal yaa ko fi nekkal waxtalaanaay wa yaa ko yaa jarawaayo ñëwal ñu deeyo bisa saanaay sëriñ bi yaa jara nekkal yaa mën a jéggal noon yi nga mbugal bila haanaay naw naa saa yeene yaatal nga diine woo nit woo jinne dahin jaay sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba yaa jara jublu yow de amuloo nga teñlu yaa mën a wallu neex ma rajaay sëriñ Tuuba say waxay we say jafa kawe nanga nu gaawe minal luwaay